delswat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mi ñu wóor sëgal mu may ñu fanaanuk jàmm duñu deñ duñu taay di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm di ko ñaan moom buur bi tabaraka wa taala di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayina bisalaam wa adxilna aljannata daaraka daaru salaam amin yàlla boole defal la ñaan bi di tekki mbokk ñu bokk sant yàlla ñaan ko ndax lañ ko ñaan ni moom moo ko yore ci nguuram la nekk te moo koy joxe ñu di ko ne allahumma anta salaamu bur yàlla yow yaay jàmm mboolum xeetu yiw ya doomu aadama yi soxla ci sa nguur la nekk wa minka salaam mboolum xeetu yiw ya jaam yi soxla ci yow lay bàyyeekoo waaye nag ilayka salaam mboolum xeetu yiw ya doomu aadama yi di yittewoo ci yow la ñuy bàyyeekoo fa xayyina bisalaam ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may ñu dund ci jàmm waaye bu ñu noppee ci dund bi tamit udxilna al jannata daaraka daaru salaam yàlla nga ñu may xiiwal ñu tabbi arjana bi nga xamante ne mooy sa kër bu tedd boobu te mooy arjanna amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar wi ñuy nuyu suñu mbokk auditeurs ya nekk ci tata ligne 77 bay daw te Tëngéej mbokk sofóori tata yooyu ak euh, képp ku ñuy bàyyi xel ci waxtu wi ñu ngi ñaan yàlla yan nañu yàlla may kendaluk jàmm yan nañu yàlla may jàmm bañ koy ñaan nii ñu ngi fas yéene wayandik yéen ci suñu waxtaan ba nga xamante ne mooy diggante wuy juru ak doom vacances yi daanaka manees nañu wax ne la des ngir mu jeex bareetul ci kattanu yàlla képp ku yóbbu sa ci daara vacances yi bem fa nab nabi tuuti ci alquran walla fukki saara yañ leen doon dégtal képp ku yóbbu sa doom ci daara vacances yi am lumu mu fortaatu ci alquraan ba yàlla wàccal yonent bi sallallahu alayhi wa te mu bokk ci alquraan woowu ne yow julit bi wala yow doomu aadama bi bokk na ci lañ lay laaj ci sa tiraayu baamel ñu di la wax ne yaa abdallah yow jaamu yàlla bi maa kitaabuk ana lan moo doonoon sa téere bu dee danga fi nekkee woon di jëfandikoo weneen téere bu wuteeg alquraanul karim tontu bi du méngoog lañ la laaj waaye bu dee da doon jëfandikoo la nga xamante ne mooy alquraan ba yàlla wàccal yonent bi sallallahu alayhi kon kerook manis nañoo wax ne yow di nga a tontu nga ne alquraanu kitaabi alquraan ba yàlla buur bi tabaraka wa taala jox yonent bi moo doonoon sama téere question bi yàlla ñu yàlla jàppandal réponse bi mu méngoog lañ lay laaj yow doomu aadama bi ci sa tiraay boobu kon téere alquran boobu ëpp na jullit bi di ko sàggane dañ ne bu fekkente ne jàng ko mënut yemb am na format yoo xamante ne loolu war naa mun a jàppandi nga nekkee ko moo ne jëlal sa doom yóbbu ko fu ñu koy jànge jëlal sa ñàq dugal ko ci ñu koy jàngale ndax loolu def ko ñàkk kaa def wàññiwul dara ak la yonent bi tegtal ne ñoñu alquran ña safoo alquran ñay jàng alquran ñu di ko jàngale ñu jikkowu alquran ñooñu ñooy ña yàlla tànnal boppam ñu doon njabootam moo tax nga gis ci maana xadis yonent bi salaa salaam di wax ne ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu ñoñu alquran fami alquran ña safoo alquran wala ña safoo ñuy jàng alquran wala fañ koy jàngee walla ña koy jàngale ña safoo ñooñee ñooñu la yenentu bi ne ñooñu de ñooy ña yàlla waaye fii ci àddina te ñooñu ñooy ña yàlla sopp buur bi tabaraka wa taala yàlla ñu yàlla boole ci ñuñu alquran ba yenentu bi ne ñooñu ñooy ña yàlla sopp amin ya rabbal alamin kon wuy jur ya jàppoon seeni loxo doom yi yóbbu leen ci daara ba ñu jàngee alquran moo xam daaray vacances la wala moo xam dañoo jël seen doom opte ne ñoom alquran lañu bëgg jàng ba tax nañu yóbbuleen ci ay internat yu fasante ko wala ñu yóbbuleen ci ay franco arabe yu fasante ko ñu daldi ci xàmmee as la nga xamante ne mooy la leen di niital la leen seen diine jàngal kon waajur ñooñu ñu ngi leen di wax yal na bu yàlla tas yaakaar bu yàlla tas yaakaar ba ngeen amoon seeni doom ba leen yóbbu ñu jàng alquran yal na yàlla def alquran mu nekk lumière ci seeni dënn gannaaw si lu ñu mun a jàng xam ko mokkal ko gannaaw si lu ñu mun a dégg xam ko man koo jëfe ña wattu alquran yal na alquran jàllar beku mu doon seen kiiraange amin ya rabbal alamin ba tax na doom jooju jàng alquranul karim kooku la buur yàlla tabaraka wa taala bëgg a wax ak moom ci message ba yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba buur yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mooy aaya ba nekk suuratul isra mbokk yi bu ñu demee xool saar ba nekk ci suuratul isra ci aaya vingt-quatre dinañu gis depuis aaya vingt bi keroog ngay àgg aaya vingt-quatre dina ñu gis buur yàlla tabaraka wa taala muy wax yenentu bi ne ci suñu téere bu mag ba ñu yore fii ci àddina ñu di ko jàng tur tànk yi di ko jàng ci internat yeeg ci daara yi sëriñu daara yi yal na leen yàlla fayal yal leen ñu yàlla fayal amin ya rabbal alamin téere boobu ñuy jàngal tur tànk yi yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ngi nii di joxoñal yow doom man la yàlla dénk ñaari waajur bi nga nekkee tu tànk fu ñu jaar ak yow waxtaan ya weesu waxtaanoon nañu ko yéen ci loole waaye bi yoon yàlla yow lay waxal en tant doom moo xam xale bu góor nga déglul la yàlla bëgg a wax ak yow ci message bu mu jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam xale bu jigéen nga déglul message ba yàlla buur bi tabaaraka wa taala jox yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu yeggee leen ko ngeen war ko mën a xam ngeen war a mën a comporté woo comportement ba yàlla ne noonu la la bëgg ngeen comporté ko ko ngeen meloo ko ak seeni wuy jur nga la nangeen yéen na bañ a doon ay xeet ñi nga xamante ne seeni wuy jur yi bu ñu tolloo fenn ci màggat dañ leen di beru yóbbu leen ci kër wi nga xamante ne dañ leen fay xool di leen saytu di leen bàyyi xel ànd ak loolu ngay fay xaalis ngir ñu nekk foofu yàlla bëgg a ñoo moytandikuloo ñun xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa jëflante bu ñaaw boobu ñu bañ ko jëflante suñuy wuyjur ba tax na yàlla jox yonent bi message bu foor jëmmale ko ci doom na mu war a comporté woo ak wuyjuram yi ci suratul isra aaya bi mooy baada audu billahi min alsheytaani arrajim wa qadaa rabbuka allaa tacbuduu illaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanan imma yablughanna indaka alkibaru axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin wala tanxaruhumaa wa qul lahumaa qawlan kariima waxfid lahumaa janaaxa aldulli min arraxma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira sadaqa allahu alaadim mbokk yi ñu ngi nuyu di sant di gërëm mboolem yay yi mboolem yaay ñi nga xamante ni ñoo bokk meññ tuut tànk ba nga xam ne moo xam góor la walla jigéen la nañ leen bokk sant yàlla waaye delloo njukkal suñu wuyjur ñu ñu meññ mbokk yi comportement ba alquran tegtal jullit bi neen noonu nga wala comporté woo ak say wuyjur bu duwutoon laburu yàlla tabaraka wa taala joxoñ ne noonu lañu war a meloo ak suñu wuyjur melokaan bi kat xawma ku ñu ko war a wax boo ñu koy wax tamit est-ce nu alquran nosee ne nii la tuut tànk war a mel ak wuy juróom est-ce noonu lay deme loolu tontu bi kenn ku nekk na ko xalaat noo koy tontoo waaye ndegem alquraanul karim di baatu borom bi subhaanahu wa di kàddu yàlla buur bi subhaanahu wa ndegem moo ñu baaxee ne nii laa bëgg kenn ku nekk ci doom yi na ngeen meloo nii ak seeni wuy jur kon lii mooy la nosewu lii mooy la jekk lii mooy la nga xamante ni képp ku ko dégg xel mën na kaa nangu amul benn xel bu mën a dégg aaya bi nga di ko rejeter nga di ko bañ lu dul di ko accepter nga nangu ko rafetlu ko ndax kàddu la boo xamante ne du kàddu scientifique du kàddu buxaaba du kàddu savant waaye du kàddu philosophe nit ñu mag ya ñuy puugaréewu di wax seeni doxalin ak seeni melokaan kàddu bi du kàddu ñooñee kàddu bi kàddu yàlla la ci bind ñooñu ak seen xam-xam na mu tollu ki bind ñooñu ak ki bind lañu xam kooku ñu tegtal li aaya bi di tekki di buur yàlla subhaanahu wa taala ba tax na mbokk yi ñu sant dellu di gërëm mboolem wayjuri yi ña faatu yal na leen yàlla yërëm yal na leen ña fi des yal leen yàlla yàggal suñu kanam ñu dinuñu tette yóbbuñu ila maa yuhibbuhu llahu wa yardah ñu di ñu jëmee ci fépp fu yàlla sopp mu doon fa mu gërëm incha allah yal yàlla may fan bu gudd ñu yàgg ñoo tette yóbbu ñu ci ngërmande yàlla ak lépp lu yàlla sopp amin ya rabbal alamin mbokk yi aaya bi la muy tekki mooy yàlla daf ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyah nee na man yàlla maa dogal maa farataal ci kaw doomu aadama bi ne na bañ a jaamu lépp na bañ a jaamu na lank bi tëdd naaj wi ngir jaamu leneen na bañ a jaamu lépp dem des man yàlla noon dong la war a jaam wa qadaa rabbuka sa borom moo dogal moo faratal ne allah taabudu ne bu leen jaamu illaa iyaahu lu wëlis yàlla waaw fi jaamu leneen lu dul yàlla fii qada ñu ne yàlla dafa faratal mu andil la turu rububiya tawxiidu rububiya la la andil wiital yàlla ci moom bam la moom ak lamm moom mboolem mbindaafoon yi tuuri rabb la jëfandikoo fii wa qada yàlla moo dogal ne waaw rabb ko kii sa borom moo dogal wa qada moo dogal rabbuka ka la moom ki bind moom la nga nekk fi ci ndigalam te boo fiy jógee ko ci ndigalam nga fiy jóge ko kon kila moom bàyyi la fi kooku moo dogal ci yow ne bul jaamu dara illaa iyaahu lu dul moom yàlla kon yàlla dañ koy jaam léegi nag mu bëgg laa jox ñaareelu message bi mu ne la wabil waalidayni ci say ñaari wuyjur yi nag ihsaanan nanga nga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar kon fii ñu gis ne ibaada yàlla lañ koy defal jaamu bi yàllaa ka moom waaye rafetal bi ñaari wuyjur yi ñoo ko moom waaw yàlla danga koy jaamu waaye rafetal jëmale ko ci ñaari wuyjur yi ñoom ñaar ñoo méditewu loolee say ñaari wuyjur doo leen jaamu yàlla doo rafetal jëmale ko ci moom léegi-léegi nga gis koo xamante ni day juutal mbir yi day rafetal jëmale ko ci mbiru yàlla mu nekk fi di jaamu ñaari wuy juróom wala muy jaamu leneen wala muy jaamu keneen ci xeetu formaay or ko yàlla da ko ne ko jaamu bi maaka moom man nga koy defal rafetal bi nag nga jëmale ko ci sa ñaari wuy jur yi kenn ki di pàpp keneen ki di yaay ñooñu da ngay rafetal jëmale ko ci ñoom ci kàddu ci jëflante ci xoolin ci wax ci nanga rafetal sa muamalaat ak say ñaari wuyjur na nga rafetal sa jëflante ya ngay jëflante ak say ñaari wuyjur na doon anam bu gën a jekk anam bu gën a rafet yàlla la sant loolu mu ni la moo xam imma yablughanna indaka alkibaru ahaduhuma imma yablughanna indaka ahaduhuma moo xam ñoom ñaar màgget daa dab kenn ci ñoom ñaar aw kilaahuma walla ñoom ñaar ñoo bokk màggetandoor léeg-léeg nga gis paa njëkk a màggeti meer bi walla léeg-léeg nga gis meer bi njëkk a màgget paa bi yàlla ne na nga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar ci moment woowu aw kilaahuma wala ñoom ñaar bu fekkente ne dañoo màggetandoor na nga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar ñi mbokk yi xam ngeen ne jëflante ak màgget amul dara li ko mitti amul dara li ko gën a mitti boo leen ne tey ñu ne la suba boo leen ne ñuul na ñu ne la weex na boo leen ne guddi na ñu ne la bëccëg na am na loo xamante ne nu ngeen ko xamee noonu laa ko xamee am na ñoo xamante ne dëkk ak ñoom daf di lu compliqué waaye ànd ak loolu yonentu bi salaa sallam message ba ko yàlla jox di téere alquranul karim ci saar bañ leen di waxtaanal nii ci waxtaanu suba si jaar fii ci réew mi fm 97.5 yàlla nee na moo xam ñoom ñaar ñoo bokk bu ndoor ci néggu màgget yow mi di doom bi na nga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar moo tax mu ne cere yi nag mooy fala taqul lahuma uffin màndargay naqari deret ba ñu nekkee bu leen fa fekk bu leen fekk ci loolu be nga leen naan kàddu di gën tuuti mooy ah wala uf kàddu bu gën tuuti lu mën ni ciipatu bu leen ko def sa ñaari wuy yi kàddu ju gën a tuuti bu mel ni ñaari xarfu yi uf wala ah yàlla nee bu leen ko jëmale seen ñaari way yi loolu yëpp ci xeetu tere yaleen yàlla tere la pour ngeen jëflante ko seen way jur yi la ñaareelu tere bi mu ne ñu wala tanharuhuma bu leen leen merloo merloo sa way jur loolu musiba gënu ko ëpp musiba gënu ta ëpp ngay merloo sa ñaari wuyjur waaw yàlla moo la ko tere mu ne la wala tanharuhuma bu leen leen merloo bu dee kàddu ba leen di merloo la ngal la waaye na ko log sa gémmiñ donte day xar sa put bi waaye bu ko génnee mu ñëw ci sa làmmiñ na nangu sa put bi xotteeku na xar waaye kàddu bay merloo say ñaari wuy jur loolu donte sa boo ko bàyyee sa biir gémmiñ say buñi yépp ay wadd benn par benn sa tuñ bi rot na loolu am na sa bëñi wadd na sa tuñ bi dàgg waaye kàddu bay merloo say ñaari wuy jur waruta génn ci sa gémmiñ muy dem ci seeni nopp ndax yàlla la ko tere subhaanahu wa léegi nag comme yàlla dalaa tere ñaar yi nga xamante ne daf la ne falaa taqul lahuma uffin bu leen leen wax ah wala tanxaruhuma bu leen len merlo ndegem ñaari ñooy tere yàlla yàlla tere jëmale ko ci say ñaari wuyjur léegi ndigle yaa ngi nii bur yàlla ne wa qul lahuma qawlan karima dem bay wax ñoom booy dem bi jëflantek ñoom nanga wax ak ñoom wax ju teyte dagan na nga wax ak ñoom wax na nga wax ñoom wax ju mat na nga wax ak ñoom wax ju jara waxtaane mu doon wax ju teey mu doon wax ju ëmb teraang mu doon wax joo xamante ne danga koy solal yére solal ko ba jekk nga daal di leen ko yebbil ci anam bu mu gën a rafete lii la buur yàlla tabaraka wa taala digle ne yow tu tànk bi yow doom bi moo xam xale bu góor moo xam xale bu jigéen nii la yàlla bëgg ñu comporté woo ko ak suñuy wuy jur ki sa bos di dund te nga dégg message bi ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci waxtu wi na nga jël ndénkaane bi nga inculqué ko nga di ko dund sa digganteeg say jur waaye nag képp kuy xale bu góor tamit na nga jël ndénkaane bi nga xamante ne mooy jaar ci waxtaanu fajar fii ci réew Rewmi FM 97.5 nga jël ndénkaane bi gannaaw ko nga di ko waxtaan ak say ñaari wuy wuyjur yi ba léegi bokk na ci ndigle yi buur yàlla nañu wax fit laxuma jena zulli min arrahma na nga wàccee say mbagg nanga wàcce sa ndombo tànk na nga wàccee sa dayo bi nga am ci dund bi daraja bi nga nekkee dayo bi nga nekkee lala nit ñi jox comme ndombo tànk lala nit ñi di yëkkati ndegem yaa fi ne say ñaari wuyjur yi bu ñu gis loolee ci yow bul jëmale lala nit ñi di nawee ci say ñaari wuyjur lala nit ñi di fonkee lala nit ñi di joxe cër loolu na des sa digganteeg nit ñi waaye say ñaari wuyjur yi bu ñu xam loolu ci yow bul ko jëmale ci ñoom ndax ñoom ñoo nekk ak yow ba dara sottiwul ba dara nekkul dara ñu gis la fu sore nga tànqal leen ci lu bëri sonnal leen la nga xamante ne kenn mënu ko wax ci kaw kon tey taraanga àddina bu demee ba mu la dab nit ñi nawee la ci taraanga googu say ñaari waajur yi waruñoo gis loolee ci yow donte buñ koy gis tamit nang leen ka won nag ko alquran santaane wax fid laxuma janaaxa dulli min arrahma na nga wàccee sa mbagg ndomb tànk ba nga nekkee miseeli tell miseeli tell la ngay dégg nang ko bañ a jëmale ci say ñaari wuy jur te nga umbal leen yirmande ak cofel waaye nag boo demee ba di leen di ñaanal nañ leen bokk diglu la yàlla joxañ fii ne loolu lañu ñu war a ñaanal suñu ñaari wuy jur yi ñaan bi bu ñu ko yàlla waxutoon ci téere ba mu message yonent bi ngir yonent bi baaxee ko amul kenn ku ñu war a mën a joxoñal ñaan bu matalee nii la alquran andi te yàlla buur bi tabaraka wa taala jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne ñu waqul nang leen ñaanal nga ne rabbirhamuhuma sama borom yàlla nga leen yërëm ñoom ñaar kama rabbayaani sagira comme ñoom ñaar nañ ma yërëmee ba ma nekk tu tànk kon mbokk yi ñu gis ne aaya bi ndoorteelu aaya bi mu ngi ubbee ci rabb wa qadaa rabbuk aaya bi njeexintal bi mu tëjee ko waqul rabbi irhamhuma waqul rabbi kon rabb bu njëkk ba nekk ci wa qadaa ka loolu yàlla daf la digle daf la digle la nga xamante ne loolu la bëgg nga def ko moo ne bul jaamu dara du xërëm du nit du sëriñ du kenn ku dul yàlla yàlla nee na ma dogal ci yow maa faratal ci yow ne man dong nga war a jaamu waaye maa faratal ci yow ne na nga rafetal jëmmale ko ci say ñaari wuy jur moo xam kenn ci ñoom ñaar moo njëkk a màgget moroomam nanga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar wa illaa bu dee ñoom ñaar ñoo bokkandoor soobu ndoor ci néggu màgget bur yàlla neena nanga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar tere bi mooy falaa taqul lahumaa uffin bu leen wax kàddu gu gàtt ju mel nii ah, mu teg ci ne bi léegi ci tere yi bur yàlla tere na la yow xale bu jigéen bi yow xale bu góor bi wala tanxaruhuma bu fi nekk di leen xoroñoñal bu fi nekk di leen bunduxatal bu fi nekk di leen mittital seeni xol waaye lala yàlla digal ne loolu nga war a def mooy wa qul lahuma qawlan karima boo demee bay wax ak ñoom na wax ak ñoom wax ju tey te dagan mu doon wax ju neex a dégg waaye nag bokk na ci ndigle yàlla yàlla digal nee na loolu nga walla comporté woo ak say ñaari wuy jur wax waxfid lahuma janaha dulli min rahma na nga wàccee sa mbagg na nga wàccee sa ndomb tànk na nga wàccee sa bopp suufil sa bopp ci ñoom ñaar te nga ëmbal leen cofeel ak yërmande boo demee ba leen ñaanal nag wa qur rabbirhamuhuma na nga ñaan yàlla yàlla nga leen yërëm kama rabbayani saghira comme nañ ma yërëmee ba ma nekkee ndaw ba ma nekkee tu tànk mbokk yi bu fekkente ne buur yàlla tabaraka wa taala lii la jox yonent bi comme message mu partagé ko ak xeet bi ndegem temu gàmmu bi ren mooy maqaarimal axlaaq jikko yu baax ya nga xamante ne dañoo commencé di ruus di disparaître di fi jóge ko ndànk-ndànk ñu nit ñu tibbee ci maqaarimal axlaaq la alquran jàngale ne lii la tuut tànk war a comporté woo ak wijuram tey ñu andil leen ko ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi FM 97.5 aaya ba nekk ci suratul isra aaya 23 ba keroog ngay àgg aaya di wa qadaa rabbuka allaa tacbudu illaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanan imma yablughanna indaka alkibaru ahaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uffin wala tanxaruhuma wa qul lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaaxa dulli min arraxma wa qul rabbi irxamuhuma kama rabbayaani sagira ku dem xool ci sotul isra aaya bi ba aaya 24 moo xam téere bu ñu traduire en français di nga gis aaya bi ci saar boobu su ko defee mbokk yi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla wërsëgal dégg ak topp jaalana allahu wa iyaakum min alladina yastamiuna alqawla wa yattabiuna ahsana waxtaan bi jeexut dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ñay joxe xibaar sa nasaraan allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicmal mawla wa nicmal nasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma aimmatana wa wulata umuurina allahumma ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan allahuma agfir lana wa liwaalidina walmuminina walmuminaat walmuslimina walmuslimaat